yow li nga doon jàngee. ndeysaan seen waay nag moom noo leen yëgalee waay fa jaar barke borom Touba Mbacke Serigne Cheikh Mbacke Dar Rahman xam na ko bi ma demee nee naa leen le Sénégal il est augmenté tous les prix la porte il faut fermer lundi mardi mercredi travail y'en a pas lundi mardi mercredi personne non travail si travail casse la magasin wi cing cang cang yu sing song sa daa ñang ñang lii laa